lamba ja tas na mbar dem jinaani coor bare yaa ngi bakku wi samaani ku mën yeesal diine doon na waaja tarqiya tabax jumaa ji déglu wax yow atum ji doom ba fu aama wasa sin taarix ba bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi ñaan ku fi teew ku ci nekk nga joxe àddiyey dégloo ngir coono yi ñi nga xamante ne bañ fi jógee daaw ak ren ñu ngi nekkoon ci di ko waajal bés yi rekk la woon liñ yendoo tey itam ngoon gi rekk la woon kon na kenn ku ci nekk déglu ñu jottali ci ay kàddu yu gàtt ci ndigalu sëriñ Baara Mohamed Mbacke nii di suñ sëriñ di suñ jëwriñ ci ne wax ne yi war a tax ñu gàttal kàddu yi duñ ci wax kenn ndax kenn ku nekk xamal na ko sa bopp kon li ñuy def mooy section yi si nañ ci jàmm gannaaw ba ñu sante te gërëm fi ñu jaar fépp dañ mënu sé tuddu wa njaareem ci tertu bi ak teranga yi li ci dolé ku itam fi ñu fekk sëriñ bi di Touba Mbacké wa section bi itam car macha allah ci niñ leen gatadoo li ci dess nak sëriñ bang dañu bëgg bala ñoo tambali kaddu gi kenn ku ci nekk wax salamé Cheikh mustapha Mohamed Mbacké yalla na fi yag yag bu and ak wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ngi leen di nuyu di la ziar te di la baal bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom may la sax du lool waa ànd ak ba lépp loo xam ne yéen koo liggéeyal Sëriñ Tuuba suñu borom kattanal ko nga ànd ak sa coobare ba nga eggal ko bëgg ba Cheikh Mouhamadou Moustapha ngi wax ci suñu baay Abdoulaye Gueye nee na ngi leen ziar bu baax a baax ñu ngi ciy sàkku nag ay ñaan yu bëree bëri ñu ngi ciy ànd ak Serigne Cheikh Diagne bu Ngaye FM ak mbooleem góor yàlla ñu àndal yëpp nee na ñu ngi lay seedeel ni section Fatick ñi ngi ay jàmbaar lañ jàmbaar yoo xam ni saa bu déggee sa ndigal tu taxaw ñi ngi leen di ñaan nag nga ñaanal leen lu ñu mën ren yàlla ñu ko mën déwén léegi ñaan di sax ci yooyu ñaan nga ñaanal soxna yi ndax soxna yi ay jàmbaar lañu baax a baax a baax a baax ndax saa bu déggee sa ndigal amatuñu nelaw amatuñu guddi amatuñu bëccëg kon nga ñaanal leen képp koo fa nga nekk fa ngay sàkku ngërëmal yàlla suñu borom may la nga am foofa ngërëm lu sell barke ñu Mustafa ak njaboot bu barke di jaay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nee na nag mi ngi lay ziar bu baax a baax di la sant bu baax a baax te sant waa Mbuur bu baax a baax ci seen mobilisation ci seen jàmbaar ndax kat benn la gi ngay woote di bëgg ñu def ko ñoom ñi ngi ci ndax saa bu jotee ñi ngi jóge mbubu ñu ànd ñoom ci bis bi seen ak jàmbar lool kon ñi ngi ñaan ñoom it luñ mën ren rek yàlla ñu ko mën déwén lu kooku di sant waa Diourbel bu baax a baax a baax ci dalal bi yaatal bi jàmbaar bi ak fulla ji ak fayda ji ak uh, oyof bi ñun mën ren yàlla ñu mën déwén lu kooku barke sëñ Mourou Moussa Baye Abdoulaye Dieng nee na mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm di sakkuwaat ñeew ñaan lépp ci secteur Fatick yëpp ak waa Siin yëpp lépp loo xam ni luy lore la yàlla buñ ko gis lépp loo xam ni am na ngërëmal yàlla yàlla buñ ci génn jiitu jaay Seydina Muhammad barke sëñ Moonu Musaa ci turu Serigne Cheikh Thiam nga xam ne moo jiite section Ahibahil Khadim li nasrati al-qawi Mbuur nga xam ne moo jiite section Ahibahil Khadim di la jottali am nuyoo ak ak ziyaaram ak mboolem jiw yi nga xam ne ñoo nekk ginnaawam yëpp di ko jàppale ci liggéey bi di nuyoo yaaru sëñ Njaay nga xam ni moo jiite soxna yi ak mbooleem jëwri ni soxna yi koy jàppale ci liggéey bi yëpp di la jottali tamit nuyoo bàyyi Alassane Seye mu ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal te di la sakku nga ñaanal ko yàlla sa borom mu wéral aw yaramam bu baax te dolli ko si yàggal comme ni ma ko ñaanale ginnaaw loolu sëriñ Cheikh Diam nee mu ngi sant yàlla bu baax di la sant bu baax ci liggéey bi ni jamono bi mu ne yaa ngi ko jënd di ko teg bu ñëwee rek suñu borom bi def leen gàttal ba nu ñu ko bëggee nu man koo defee noonu ne ni seen ne saa bu nekkee di dëgëral seen sawaay rek seen xel dina dalal seen xol dina sedd seen yaakaar dina yokk kon nag Mbàkke nee na moom nga ñaan nga ñaanal leen duñu bëggal suñu ginnaaw ñu la ñaanalee yàgg fi lool te ànd ak bu wér ndax xam nañu saa bu amee ñu bëgg ci borom rek li leen gënal ci suñu àdduna mooy liggéeyal la ba bàyyi ñu sàngal ko suuf ndax xam nañu ni liggéeyal la mbégte mi ñu ci am ak xol bu sedd di ñu dund mënuñu koo am ci leneen lu dul la kon di la yóbbalante nuyoo waa daayira yi nga xam ni ñoo jël section bi te nekk ndax ñépp ñëw nañu góor ñi ñëw nañu jigéen ñi ñëw nañu mag ñi ñëw nañu ndaw ñi ñëw nañu biñ jotee ndigal lii dox nañ ci comme ni ndigal lii rotee ci suñu kaw te moo di combat bi nga xam ne baaxoo nañ ko daa ko def te ren ñu gis ci ak yokkute bu baax ndax ni nga soññee woon màggal bi wan nga diko woote waa gën koo soññee ndax li mu tombee ak téeméeru atu di Seexul Xadim Seex Ahmadu Bamba ñu gisee ci dëkkam yii di Tuubaa kon nag Mbàkke ñu ngi lay ñaan ziar yi ñu lay nga ñaan ñu yàlla suñu borom mu defal nu ko ba mag ña fekkee sëriñ bi gànnaar ba mu wax ne inna lazina ila sarsaar xat xasado siyaayati faaxu daani aw saar suñu siyaar ndaw ñu ngi jottali seen nuyoo seen nuyoo ak seeni siyaar ak seeni dollee jébbal seeni bopp di dollee ñaan suñu borom yàggal la lool màggal gii ñu def ko ay ati ati ati at at yu yàgg yàgg yàgg yàgg te li ci sëñ Moodu Mustafaa waxoon lépp dara bañu cee teg yàlla bu dara yàqu yàlla bu dara sooxe noonu ñaan nag suñu borom mi xam ne mooy aji maye yow ñi nga ne yaa nekk suñu kanam ñun de ñooy sant bu baax ñooy gërëm bu baax suñ xel dal na ndax léeg-léeg nga fi mën a wommat jëlee yoon woowu rek nga jaar te yoon woowu mooy yoonu lislaam ak yoonu taalibe bi woowu la jaar jaar ci mboolem mbooloo mii de di ñaan li nga bëgg a liggéeyal lislaam yàlla na ko saa borom defal ni nga ko bëggee mu àgg ni nga ko bëggee kenn ànd koog yow ah gannaaw ci yoon. ca coono yooyu ñu ñëw ñu ngi ñaan mboolem daayira yi ca coono yi nga xam ne ba nii ñu ngi teewal ko teewee ñu ko gën a rafet gën koo jaamu gën a lépp lu ñu def seet sa ci jublu su amee yeneen ñoo koy jégalu waaye lépp lu ñu def seral ak xol rek lañ ci jublu ndax seral ak xol moo ñu jëriñ tey moo ñu jëriñ ëllëg gannaaw ci loolu noonu ñaan nga doon ñoo ñaan ñu suñu doole rafet te dara la bañ cee si nga ñaanal ñu wërsëg yi yokku wërëg yi yokku xol yi gën a jàppante gannaaw ci loolu jigéen ñi nga xam ne ñooy topp suñ gannaaw ñooy ñaan nga dolli leen ñaan ndax jigéen lañu waaye góor ñi mënuñu leen boo wootee kenn du leen jiitu booy laaj duñ la kenn du leen bu ñu séddalee seen sas kenn du leen jëkk a matal gannaaw loolu ñooy tax suñu baax ñi nga mooy suñu jëwri te Ahmed laa jëkk a ci ñun waa gisee liggéey ci bare bare bu ñu waxee ay sax sax yu xaw a am sooxe dafa laa bi lool ci ñun ndax du fokk ci garab yi du gëdd kenn noonu koy ñaan nga àgg sa gannaaw te ñu nekk ci kanam liggéey bi àgg foofu bëgg nun ñëpp noo ngi maase di yeesal sunu jaayante di la jëbbalaat sunuy ruu di ci boole sunuy yaram ak lépp lu nu topp rek Mbàkke jébbal na la ko tey jii saay rek xam na ni la yaay suñu lépp tey ak atum ren jii nag day at mi ñu wax ni mooy centenaire u Serigne Touba bi ko sëriñ mooy Moustapha andee fii ci jumaa ji ak tey jii di suba jii li jëm mooy téeméeri at téeméeri at yooyu nag yow Mbàkke daa mel ni sa gis-gis. jiitu woon na ci lu mat fukki at ak nangam ci ginnaaw kere ba ñuy collecté tournée Ahibahil Khadim ca Tookër ba danga noo waxoon nun taalibe yi nenu liggéey yu bare ngi suñ kanam te dama bëgg ànd koog nun liggéey yooyu nag ñaar yi ci jiitu mooy màggalu Hisnul Muharram gii ak guddig laylatu mawlidi nabi gii ñuy defal sëriñ bi fataay boobaag léegi def nga ko fukki at ak nangam at mu jot mu gën a raw moroom man yeesu woon ba yàlla dogal tey jii ñëpp di ñëw di màggal centenaire waaye yow fekkoon nañu la ci nuy ñaan nag ci màggu yàlla ak baaxu yonent bi dara yi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul deuxième centenaire bii di ñëw yàlla nga ci dox lu sore te ànd koog yow bii di ñëw muy deuxième centenaire Sëriñ Tuubaa yow Cheikh Moustapha yaag sëñ Cheikh mii toog fekk lii nuy ñaan yàlla ngeen ci dox lu yàgg tan ànd koog yow kon nag na ñëpp ne amin yàlla moo xam lu ko soob waaye suñ sanoon sax deuxième bi fekk ko fi waaye nag lu mu ci am rek na bari lool ten fekk ko ànd koog moom ginnaaw loolu nag section Kaolack ci njiitul Alaaji Taala Touré ak mboolem ñi mu àndal ci bureau bi ak liggéey bi ak mbollem mag ñi nga xamanteni bismillah len section Kaolack ci njiitul El Hadj Talla Touré ak ñim sëriñ Mbaye Ndaw sëriñ Ibrahima Ndour sëriñ Sidi ak ñëpp ak présidente bi ajaratu Abi Kane ajaratu Mame Penda Dieng ak mboolem jigéen ñi seen ginnaaw ñu ngi maas ñoom ñëpp dina la siyaare di la nuyu te di la ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ni benn bis la ci yow mu Hisroona Muharram waaw ku ne nag mën na cee jàpp waaye yaay borom bis ku mën na cee jàpp waaye yaay borom ci mën a jàpp it yow rek lay jàppale waaye yaay borom gis ku ci liggéey it yaa koy fay ku mën a liggéey ci si wala maalam ak fu ko mën a liggéeyee yaa yore fay gi yaa koy fay loolu yàlla def na ko ba noppi te neex na ñëpp yàlla na yàgg sunu jigéeni Kawlax ñu nag jàmbar nañu lool kenn mënu leen ci ceewaay kenn mënu leen ci addiye ànd ak yar ak teggin di jàmbaar lool noo ngi lay koy noo lay dénk seen bopp di leen di leen di leen di leen leen dénk ak mboolem daayira yi nga xam ni dañoo aju section Kaolack boo limee day bari waaye benn daayira manqué wul ñëpp ñëw nañu seeni i jëf ñëw nañu waaye mënee sujee ñàkk tudd mbaabu mi ma sàmba Dieng ak Sébastien sëriñ Cheikh Sakho sëñ Assane Loum mu mu ndibawaalo ak Touba Ndiangéen sëñ Saliou Dieng ñoom ñëpp ay boroomi Pastef lañ yoo xam ne soo limee rek danga bàyyi kenn te koo bàyyi du ko neex waaye ay jàmbaaram nekk foofu daa daaru fokka caar ba ca Touba Saloum ñëpp daal ñu ngi maase dina jébbalaat sax seen bopp waaye nañu sant yàlla nañ sant yàlla cheikh najaay yi sant yàlla ndax suñu borom mu ñu defal moom xam na ko ñun xam nañu ko suñu fa Mbàkke mi nga xam ne moom la jàkkaar àddina ak rek xam na ko ñu nag tuuti nañ sax nag ci wax ci lu mel noonu ndax kii nga xam ne moom lañu yaakaar moom daf ñoo tiim nekk suñu biir nekk suñu biti wëruñu daf ñoo wër ndomb suñu somb ak Muhammad ab taalibam yemalu ko ak dara ku bëgg taalibam la kuy sot la na seen xel dal dara du ñëw léppay baax see seen xel dal na ñëpp ànd ak man nag la ñu waxoon daaw rek waxoon naa leen daaw kan moo baax ngeen ni Cheikh Moussa Mbacke Mouhamed nañ fa dellu nañu wax ne Moustapha baax Moustapha Mbacke baax musta baax Moustapha Mbacke baax Moustapha Ba Moustapha Mbacké Ba Moustapha Ba Moustapha Ba Moustapha Ba a wax mu yàgg koo dégg ndax suñu borom tabaaraka wa taala dimbali ñu baaxal yi sëñ bii ko ànd ak moom baax rek moo la jikk baax rek nga mën a ndax moom dafa baax te day baaxal ma wax loolu tuuti avant ma ñëw ci programme bii gis nga dañoo wax centenaire centenaire nattukaay la centenaire nattukaay la fukki mooy décennie nattukaay la Ahibahil Khadim am na fukki at ren décennie fukki yoon mooy téeméeri at ku bëgg a natt téeméeri at Sëñ Tuubaa ñëwal ci fukki atu Cheikh Moussa Mbacké Mouhamed mii boo ci ñëwee nga xool fukk par fukk muy téeméer nga xam ne kii mooy kan ki ñu am barke sëñ Mouhamed Moussa Mbacké kenn la ci kow suuf kenn rekk la décennie décennie xoolal koo xam ne ki turu na fukki at àdduna juróomi continent la foo dem gis fa mbox yu weex ak kaala yu bax ñu tiitaru bu bàkkoo sëñ Mouhamed Moussa Mbacké Mouhamed moo ko def fukki at la am li mu li mu sax li mu sos fukki at la te nag du yëfam de sëñ mën Moustapha mii sosul lu bees daa ñëw fekk maamam sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma ndi daayira laa sos li mu soxla yépp ni li gën a yóbbu nit ci àjjana gisuñ ko gën a gaaw daayira mu teg ko suñu loxo moom mu ñëw ne loolu la jël def ko jumtukaayu liggéeyu sëriñ Touba jumtukaayu sëriñ Touba liggéeyu sëriñ Touba la jël jël ci bagaasu maamam mu lew ko doom soo xoolee sëtëg maam fu mu nekk nii kii jóge fii léegi seede la ci li may wax sëñ Cheikh mi fi jóge seede la ci may wax xam nga lu tax laaj ma lu tax xam nga lu tax sëñ Mourou Moustapha mii moom mooy sëtu sët yi sëtu sëñ Tuubaa yi am ne nii yooyu sëñ Tuubaa doomu sëñ Tuubaa yi ñoo doon sëñ Tuubaa jeex nañu ci sëñ Saliou léegi sët yi ñooy sëñ Tuubaa moom nag mooy sëtu sët yi moo fi nekkal sët yépp amul benn sëtu Sëriñ Tuubaa bu am sago ci suñu sëriñ bi amul ñoom ñëpp ko bëgg ñoom ñoo ko faw ñëpp de ko teg ndax ñu kawe lu tax ndax dafay tiitaru yoonu murit kii tiitaru yoonu murit la ku nekk bëggoon nga am sët bu mel nii kenn ku nekk bëggoon nga am sët bu mel nii kenn ku nekk bëggoon nga am rakk kenn ku bëggoon bëggoon nga am doom ju mel nii nag sëñ Mbàkke Soxna Lo bala moo dem dafa ñoo àtte ak moom àtte àddina ak moom xam nga lu tax sëñ Jokalante suuf nag bi muy dem dafay bàyyi place vacante place bi ñu tudd place samp suuf moom place bi mu fi bàyyi samp suuf moom si soo woon sëñ Moustapha def li muy def ci kanam sëñ Moustapha bàyyee ko ci loxo sëñ Moustapha ku gëstu gi Cheikh Moustapha da nga naan di moo fi sës sëñ Moustapha moo fi sës ndax moom Moustapha li mu ngi nii da ko yebal ca àll bu xonk bi ni ko demal dëkk sëñ Moustapha bi sëñ bi wàcc nekkul fii te bi ñuy bi nga xam ne bii rek jëpp lu jot amul place place am moom nekku fa nit ñëpp lu ñuy def toog di xaar sëriñ bi tayif toog ana ku ñu ana sëriñ soo ñu nekku nga naa fa toog xaar loolu atteel mun ma cee sori nag mun ma cee sori la que day doy waar boo ci sori du xam nga dama lay wax boo ci sori rek dafay doy waar waaye moom sëñ bi daf ko bàyyeeg place vide mu dem nga xam ne foofa lu ne mënoon na faa waaye ñëpp seex si seex si ku mel ni sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Gëy Ngàcc mii ko mel ni musa gay fofu lañu wone aw ñoom ci kaw ak suuf yépp mu fekk ay ay jëm yoo xam ne lañu yaakaar ma nga jéggu lu dama mëna yépp mbir def may dal sëñ bi ñi nga lay wax ni Dakar ñëw na nam daan ñëwee and ak suñu suñu sang bi Cheikh mohammed Lamine baram bak jambar bi nga xam bi yow rek la gëm yow rek la am sëñ Bara so jébbaloo ci mom and na sëñ Moussa Mbacké Mouhamed laa am lu mu digle nekkal ci loola lu mu tere bàyyil loola señ baram mbakke kenn du ko gis ci dara lu wutok lu worok sëñ Moussa Mbakke Mohamed amul kudul mom moom ko mag dafa ko kilifa ab serigne lako def kon koku mom tay it nag ñun daf ñu nangul lepp suñu bang bang suñu lu wa dakar xam nga ñun nak wa dakar mom dakar ku fa jido yaroo fa rek xam nga ni ki boy Dakar señ señ baara da leen maîtriser da leen maîtriser ñu bëgg ko señ baara dañ ko bëgg ñu sëñ Massiré si la ànd nañoo ko waa këram ñëw ci yoonam bàyyi ñëw ko su ma tuddee dee ko Fall tudd naa magi section bi yëpp magi section bi yëpp ngeen jéggal ma bañ tudd ay tur xanaa ma wax ci Baye Malick Diak ku mel ni Malick Diouf su ma lemee damay jiw damay fàtte ay nit te ñëppay kilifa ñëppay jàmbar ñëppay jàmbar ñu dem ci ñi nga xam ne ñoo ñooy yilif section bi sëñ Mbacke Sylla mooy vice président bi di président sous section homme ñëw na. a na Aminata Kanji moo yilif jigéen ñi jigéen ñi Ndakaar bii kenn mënoon ni leen sëñ Moussa Mbacke Mouhamed bi mu wootee bi bi ñu wootee bi ñu wootee centenaire centenaire mooy lan dañuy wane sëñ Touba centenaire bi xam nga dañuy wane kan mooy sëñ Touba ak liggéey sëñ Touba bi ñu ñëwee ñu nga xam ne ñoo ko soxla ñoom lañuy ñu sas ñu war a def mission boobu fu ñu mën a dem soo fa demee da nga xanaa wax kër sëñ Moussa rek ñoo fi nekk muy Touba. muy kaw fépp bi ñu ñëwee Dakar nag muy apothéose foofa waa Dakar nga xam ne Dakar dafa garaw luy këf nit dafa bari Dakar mooy sant mooy capitale Sénégal jigéen ñii feeñ fa feeñaay boo xamante ni bii ba àddina tukki dootuñu nëbbatu ndax seen njàmbaar ak seen takku ak seen farlu ak bëgg Sëñ Musaa Mbàkke Muhammad moom rek la ñu bëgg wala déet sax na ko bu dul rek moom rek waxaat na leen ko dégg man li moom rek laa ku bëgg ko war a mën a ko ah sëriñ bi wala ñoom parce que sëriñ wax na kenn lu waay am lu ko téye ñun kii doy kii moo ñu kii moom lañu yaakaar moom lañu yaakaar àddaaxira dañ koo waajal kii mooy ki yàlla waajal sunu borom tabaraka wa taala moo ko waajal kii mooy ki seexu xaddim xaadim rasulullah yaakaar jaam yi waajal kii mooy ki xam ne moo doon seex Moustapha sëriñ seex sëñ su Soxloo waajal ko jox ko ay bagages wax naa leen fii tax nit nekk doomu sëñ Mbàkke Soxloo doy na tiitu bu àdduna ak àllaax man doomu sëñ Mbàkke Soxloo doy ku mu doy dara du la doy ca rakam yi rakam yi nga xam ne ay garaat lañu am ca kaw sëñ Mbàkke ku nekk defal na la dara dañ koo topp gëm wóolu ko yaakaar ko ana sëñ Modou Fallou ana sëñ Fallou mi ngi nii sëñ Fallou doo rek doo rek taalibe la kii du taa du rakku sëñ bi taalibe sëñ bi bëgg ko gëm ko gëmewu ko sëñ Moussa maa ko wax man ak ñi ma àndal sëriñ Fall ci la bokk Ndiogo Fall ci la bokk Moussa Fall mu ni sëñ Fall bu ko àtte ci man ndax amul sago sama jë jëmm ji mu ngi nii Fallou Mbacké yàlla nañ fi yàgg yàlla nañ fi yàgg li nga bëgg yaa ko xam yàlla nag am lu kawe sa njot sëñ bi nag Cheikh Moustapha da ngaa woote woote ci centenaire baax baa ngi nii baax baa ngi fees del mel ni nen sëñ ba sëñ Tuubaa man suñu yàlla yi ñu la nga téye ku neex def si ku nekk fii tey nag tibb ba doyal na ñëpp am na nu wér na nu am na nu am ay tuyaaba na nu am ay xarbaax na ñu am yi ngëneel lu waay di bëgg ci kaw suuf mu ngi ci bërëb bii tey seexul xaddim tey nag moo ko la benn affaire tey lu ndamu sëñ Tuubaa de tey lu ndamu keneen de tey ndamu Cheikh Mouhamadou Moustapha la Cheikh Moustapha moo def lu kenn defut sëñ Tuubaa bu ñëwuloon ci bërëb bii barke Cheikh Moustapha dara du baax dara dara du baax dara dara nag la wax bu bu anduloon fii raay du am jumaa du am lenn du am ndax borom jumaa ji moom moo tax lépp yi kon ki def loolu amel nañ ko njukkal ba mu ko defee nag suba lay am téeméeri at moom mooy seet kon bu ñu natee siècle sant Cheikh Moustapha bu ñu natee décennie sant Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha ngi nii mooy Cheikh Moustapha mu dëkk ma euh, sëñ bi ñu nag saa yi ñuy màggal si waa dafa am benn comité de pilotage boo xamante ni bii ñoom ñooy gàddu nit ñi lii nga gis nii mooy ruu yi yi nga soxla ci penc bi ñu ëndal nañ la fukki bis ak juróom lu fees dell oto yu ndaw yi daa mel ni ay sànq lañ oto yu ndaw yi daa bari lu mel ni sànq lañ barke Sëriñ Tuubaa foo xool sa bët gis ko amul fu ma yem ndakaaru lu ñu indi fii tey ndakaaru mi ngi fii loo ci bugg def ko loo ci bugg def ko donc léegi comité de président bu fukki góor la ak ñaar ak benn soxna ñu def li wax naa leen ni leen da ngeen a lebal Cheikh Moustapha te Cheikh Moustapha ñemewul bor daa am fay fay Cheikh Moustapha noo ko mën a xamee kii fi nekkal Sëriñ Tuubaa tey muy sëñ Muntaxa ni koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lu mu bëgg suñu defal di ko la koy njortam ndax dafa dundalaat màggal Daaru Xudoos bi dafa wone aw yoon bi kiy tàmbalee la ko gunge waaw ma jow rañ ne naa sant léegi euh, waaw waaw waaw waaw incha allah léegi mu kii léegi fa ma nekkoon dafa dagg sama fiir hmm? sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dafa doy war ku xarañ la maanaam màggal gii dafa nekkoon ba bu laqatu mu génn ko pour ña pour jaa jaam yi jaruñu jaam yi jar loolu rek la bëgg borom borom kéemaan la ku teewaay ku dee waar la ku mat a ñaanal la moom sëñ Moustapha sëñ Moustapha yàlla na fa yàgg ci wër waaye nag kii la kii la jàppale ci côté boobu parce que kii moom mission xoolal bi màggal gii demoon na ba mu gi moom la jóge laa fi bëgg a damm 2020 2020 lu xew covid daa ñëw kenn màggalu benn màggal kenn màggalu benn màggal moom mu ñëw ne màggal gi bakkanam la ci teg woote kon mu ko daan wootee ñëpp ñëw 18 safar ñëw ñu ñëw donc léegi comité de pilotage boobu ma doon wax ni ñoom ñoo def lii dama leen dikk ñu leen sëñ mënu saa ngeen lebal ma wax la ni sëñ Moussa boo ko lebalee sëñ Mountakha mii ba mu wax na ñu ñëw ci moom sëñ Mountakha ni leen yéen de amal naa leen bor boo xam ne xamul ngeen koy fayee ana ñooñu léegi loolu yore yoruñu réew parce am na na leen bor bu ma xam bu ma jaaxal rek yàlla fay ko yàlla ni kon kon bor bi maa koy fayal suñu bopp sëñ Tuubaa daal di moo tax ñu ngi wér réew mi kenn mënu ci dara soo xoolee ni ñu gañee sax 54 virgule 8 28 28 arafu Tuubaa la 28 mooy signature bi al arafu Tuubaa la arafu Tuubaa mooy mo ci m ci kon kii ku mu ameel bor yàlla moo lay fay ñun nag say soldat lañu amuñu kenn fenn amuñu lenn fenn yow rek dañu bëgg yaay sunu sëriñ loo santaane ña nga ca loo bëggul doo ñu ca gis ku ñu gis ci yow nag jàpp nañ ko téye nañ ko ku ñu gisul ci yow maandu nañ ci moom ak ku mënti doon lu mu am na ko téye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom tabaraka taala murit yi nekk ci àddina bi yëpp ci barke si Moussa Mbacke Mouhamed mii ak mu maamam kii mu dundalaat dundal gàmm gi yàlla nit ñëpp am jàmm kuy murit ku nekk ak jullit yëpp yaatu na moom day yaatu na duñu xatal am na ku ñuy wax Baye Dieng Diop Baye Dieng Diop sunu membre la bu nekk Dakar ay doomam yëpp di leen a jox sëñ Moussa Mbacke Mohamed waaye moom dafa nekkoon nag taalibe ci dafa nekkoon ci sëñ Mbacke sëñ Mbacke joxoon ko sëñ Abdourahman bi sañ Mbacke demee nag mu ngi li sëñ Mbacke defoon du ko dindi moo tax mu féete fee waaye waa këram ñu ngi fii ca mi ngi dox ci daayira yi moo tax sama jëwriñ ji Modou Fall ni ma naa ko sant ci gërëm ko te bu demee si suñu Abdou Abdourahmane incha allah danañ ko gën a fësal wax ji mën naa gën a gudd waaye li wax daal mooy ñun sëñ Moussa Mbacke Mouhamed moo nuy moom bu ñuy dund ak bu ñuy dee yëpp moo nuy moom Cheikh Moustapha moo nuy moom bu ñuy dund ak yaa nuy moom bu ñuy dund bu ñuy dee moo nuy moom wax leen nag yàlla dem ci soor bëre yaa ngi bàkku bi samaani ku mën yeesal diine doon na waaja tarqiya mbooloo ma tabax jumaa yow atum ji doom ba saa ay na fu ama ba